sëriñ Abdoulahi Mbacke sëriñ Abdoulahi Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1945 ci dëkk bii nag di tuubaa muy doomu soxna Assu Sow ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke moom sëriñ Abdoulahi Mbacke bi mu feeñee jamono nag ci atum 1945 waajuram nag Cheikh Mouhamadul faadal Mbacke mi ngi ko faye nag rakkam sëriñ Abdoulahi Mbacke nag borom dër bi am na nag ñu mu bokkal soxna Assu Sow te bokkuñu nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abo Bousso ibnu soxna Assu Sow ibnu sëriñ Modou Bousso Ibrahima Bousso ibnu soxna Assu Sow ibnu sëriñ Modou Bousso ñaar ñii mu bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor doomu sëriñ Modou Bousso lañ sëriñ Modou Bousso nag moo nekkoon nag taawub sëriñ Mbàkke Bousso laataa ñuy xuus nag ci ñii mu bokkal waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan ñu wax leen nag ñii ko meññi muy soxna Assu Sow ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag ñoom ñooy ñan Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag doomu sëriñ Touba Cheikhul Xadim la nekkoon na fi itam nag ñaareelu xalifa seexul Xadim moo sanc itam nag dëkk bii nag di ndindi waajuram wu jigéen wi nag di soxna Assu Sow sëtub nag maam Maram Mbàkke la soxna Astu Sow doomu sëriñ Moor Penda Sow la ak soxna na bu Sey sëriñ Moor Penda Sow mi mook sëriñ Lamin Sow ak soxna Seynabu Sow ñoo bokk nag waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag soxna Seynabu Sow mi moom meññ sëriñ Moodu Kabir Ka moom Cheikh Moussa Ka sëriñ Moor Penda Sow mi meññ soxna Astu Sow doomu soxna Astu Mbàkke la nag ba tey soxna Astu Mbàkke doomi sëriñ Ahmadu Farimata Mbàkke la sëriñ Ahmadu Farimata Mbàkke doomu Maam Maaram Mbàkke la ba tey sëriñ Moor Penda Sow mi meññ soxna Astu Sow doomu soxna soxna fari gay bala soxna fari gay ba doomu sëriñ ba bala sëriñ ibrahima ba doomi mam baara saajo bala mam baara saajo ba mi doomi soxna saajo dem la soxna saajo dem ak soxna ay sa dem mi meññ mam ay aysa ñoo bokk nag waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag soxna asu saw itam nag sëriñ fàllu mbàkke nag dëkkoo woon ko bi mu ci amee benn bant boobu nag di sëriñ abdullahi mbàkke la ko yeewi woon boole kook nag sëriñ moodu buso di taawub sëriñ mbàkke buso di xamal sëriñ moodu buso nag damaa bëgg nag nga dëkkoo nag soxna Fadal Mbàkke nag jébbalee nag soxna Astou Sow moom sëriñ Modou Bousso moom sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Modou Bousso nag dafa gàntaloon nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke Cheikh ko xamal ne soxna ko moo tax itam nag ma sàkku ci yow nag nga dëkkoo ko bi sëriñ Modou Bousso nag di dëkkook soxna Astou Sow da caa boole waale woon nag doomam ji nag di sëriñ Abdoulahi Mbàkke joxaale ko ko moo tax nag bi sëriñ Abdoulahi Mbàkke nag tollee nag ci jàng alxuraanul karim la ko sëriñ Modou Bousso nag jël yébbal ko nag ku ñuy wax sëriñ Baara nag ci gede ci loxoy sëriñ Baara Seck nag la jànge nag alxuraanul karima bi muy nekk foofu nag ci gedde ci loxoy sëriñ Baara Seck nag di fa jàng alxuraanul karim mook sëriñ Habibu Mbàkke moom sëriñ Xaas Mbàkke moom sëriñ Afiya Mbàkke moom Mamor moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak sëriñ Koso moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñum nekk ndooloon foofu nag ci gedde ci loxoy sëriñ Baara Seck bi mu tolloo nag ci jàng xam-xam ñu boole koog nag nekkoon doomu sëriñ Mbàkke Buso ba di sëriñ Asan Buso mu wéyal nag am njàngum xam-xamam ba wax nañ ne nag nekkoon na nag ku géejoo géeju nag ci wàllu xam-xam ginnaaw bu mu jàngee nag ci loxoy sëriñ Asan Buso nag la sàkkuwaatoon nag ci Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ngir dem nag jàngi nag faneen sëriñ Fàllu nag da koo gàntaloon ci diggante boobu nag la ko sancal nag daara nag ci suuf si nag di mbos na boole koog nag ay doomu aadama ñu mën cee ràññe nag sëriñ Saaliw Ñang nag di ab goroom sëriñ Fàllu Saw nag nekkoon nag nijaayam sëriñ Abdu Salaam Jóob itam nag ca la bokkoon nekkoon nag doomu bàjjanam mbay Mbàkke itam nag fa Jóob itam nag fa la nekkoon sëriñ Galas Jóob bi mu jógee am njàng nag delsiwaat nag ci dëkk boobu nag di mbossa am na ñeneen itam nag ñu fa nekkaatoon ñu mën cee ràññee nag sëriñ Sow sëriñ Sawru Jabaay sëriñ Jigaan Ngom ak ñeneen ak ñeneen bi mu nekkee foofu nag ci mbos téewul nag muy wax nag seex mu mu dul faadal Mbàkke yéeneem nag mooy dem nag jàngi faneen xam-xam bi mu soxla nag ba tey nag amagu ko sëriñ Fàllu nag wéyitam nag di ko gàntal ba mu yàgg nag sëriñ Fàllu nag foboon ñaari naari gànnaar nag boole woon leen nag sëriñ Abdoulahi Mbàkke nag foofu nag ci dëkk boobu nag di mbos ñaari naar yooyu nag li leen sëriñ Fàllu waxoon waxoon na kenn ki nag di jàngal gone yi nekk ak nag sëriñ Abdullahi ci daara jooju nag di mbos kenn ki nag di jàngal nag sëriñ Abdullahi nag xam-xam bi naar boobu nag nekkee foofu nag ci mbos nag di jàngal sëriñ Abdullahi nag xam-xam ci lu tolloog nag ñetti weer nag wala daal ay weer daa bindoon nag am mbind moom naar bi sëriñ Abdullahi itim nag bind itim nag am mbind ñu daal di boole ñaari mbind yooyu nag jébbal nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bi sëriñ Fàllu nag gisee ñaari mbind yi lay xamal daal sëriñ Abdullahi ne ki ma la booleel yow mii nag yaa ko sut nag aliwa bi sëriñ Abdullahi nag wéyee nag keneen dem nag jàngi faneen sëriñ moor doj nag moo mujj dem nag ci cheikh mamadul faadal mbàkke waxtaan ak sëriñ mohamadul faadal mbàkke ba sëriñ fàllu nag mujjoon nangoo nag yóbbu doomam ji nag mu dem jàngi muy dem foofu nag ci arabi saudi ci dëkk bi nag di a madinatul munawara mu dul faadal mbàkke kaamilu alxuraan nag la ko joxoon kaamilu alxuraan boobu sëriñ abdul mutalib busa nag moo ko bindoon sëriñ abdul mutalib busa moom doomu sëriñ aafiye busa la mi bokk ak soxna awa busa waajuru góor ak waajuru nag moo lay sàmm aar la nag ba keroog ngay delsiwaat nag fii kaamil boobu nag ba nëga ni nag mi ngi ci loxoy njabootug sëriñ Abdoulahi Mbàkke mi mu dem nag Madina ci ndigalul waajuram nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ci atum la ci waxtaan nag bu sëriñ Moor Doj nag waxtaan nag Cheikh dul Faadal Mbàkke ca yoon woowu itam nag sëriñ Fàllu itam nag yabalaale na ñeneen ñu demaale nag ca yoon wa ñu man caa ràññee nag njabootug sëriñ Moor Doj Mbàkke muy sëriñ Xaadim Mbàkke Efan ak sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Moor Doj sëriñ Murtada Mbàkke ibnu Fadal Mbacke Serigne Abdou Lahad Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke muy Serigne Abdou Lahad Mbacke ñooñu nag bokkoon nag ci ñi sëñ Fallou nag yóbbu nag di Madina ci réew mii nag di Arabie Saoudite bi mu nekkee Madina di jàng lañ yëg leen daal université boobu ñuy jànge nag wala foofu ñuy jànge ci Madina ba tey nag àlliwaam nag moo sut njàngale nag mañ fay jàngale ñu doog ko faa ko nag ci réew mii nag di Égypte ci dëkk bii nag di Caire bi mu nekkee foofu nag na faak Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke mii nekk nag xalifa Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Mbacke ak Serigne Maodo Touré moom Serigne Aadi Touré nag bu Faas Touré bokkandoon nañoo nekk itim foofu nag ci Égypte Serigne Moustapha Lay nag bi nekkoon nag Al Azhar Serigne Isaaxa Mbacke moom Cheikh Mamadul Bachir Mbacke moom Xaadim Rasool mu nekkoon nag ku géejoo géejoo géeju nag ci wàllu njàngum xam-xam bi mu jàngee nag ci gedde ba bindub kaamilam la ko Serigne Fàllu Mbacke nag yóbbu Màkkatal Mukarrama ci atum 1964 bi muy dem Màkkatal Mukarrama nag daa demoon nag tàggu nag Cheikh Moussa Ka mi nga xam ne nii kenn la woon nag ci mag ñi Cheikh Moussa Ka nag defal na ko ay way ci yoonu màkkataam woow di ko ca ñaax nag di ko ca dolli di ko xamal ne itim nag mbooleem nag ñi sant mbàkke ci at moomu nag ña ca demoon màkk nag menn moom dong nag moo ñëw nag tàggu ko si moo tax itim nag Cheikh Moussa Ka nag ma ngi cay leeral loolu di ko xamal ne daal waa mbàkke mennum yow dong nag yaa ñëw nag tàggu ma fi mi ngi koy xamal ne nag dinaa la ñaanal nag gudd fan gudd fan nag saa boo ko defee lépp lu maam ñi amoon nag da ko am gudd fan googu nag laa ñaanal soo ko defee nag yàlla nga ajiwaat nag ay ati at yoon woowu nag yàlla nga ci dem ak jàmm ñëw ak jàmm mii nga tàggu nag soo ñëwee nag fekk ma fi nag lépp loo xam ne nii nag moo aju ci aj gi yàlla nga ko def ak jàmm nag ci diiru nag aj gi mi ngi koy ñaanal itam nag darajay Touba ak darajay Tayba itam nag këpp nag ci kawam ñaari dëkk yooyu ay maamam nag ñoo ko sanc Touba Cheikhul Khadim moo ko sanc moo jur waajuróom Tayba itam Serigne Baara Sow nag moo ko sanc moo jur itam nag waajuróom wu jigéen mu di ko xamal ne nag sa maam jooju nag di Serigne Baara Sow demoon na itam nag màkkatal mu karama ci bi fi Serigne Touba Cheikhul Khadim nag nekkee ca yoonu màkka woowu itam nag la faatoo Cheikh Moussa Ka nag mi ngi koy xamal Sow jàngalekatu alxuraan nag la woon man mii di wax ak yow nag di Moussa Ka moo ma jàngal alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax nag Mérina mi ngi koy xamal ni tim nag fi mu jaar ak Serigne Baara Sow munu koo li nit fi mu jaar ak itim nag dul Mamadou Fadal itim nag munu koo li nit Serigne Baara Sow moom nag di maamu Serigne Abdoulahi mii ku yéeme nag la woon bi muy dem màkkatal mukarama nag ci nekkuk Serigne Touba Cheikhul Khadim daa bindub kaamil nag jox ko Serigne Touba doon wax ne nag amoon naa yéene nag bindub kaamil doon xamal itim nag ne ko amoon naa yéene yi nag dem màkkatal mukarama amoon naa yéene itim itim nag am doom tudde ko nag Seydina Alioune ñetti yéene yooyu mu amoon yëpp itim nag suñ borom dogal na ko nag ne def na ko laataa nag muy génn àdduna mooy bind kaamil bi def na ko jox seexul xadiim dem màkkatal mu karama itim nag def na ko doom ji mu amoon yéene tudde ko Seydina Alioune itim nag am na ko mu demee màkkatal mu karama nag fa la des soxna si mu fi bàyyi woon itim nag dafa wanoon lor bi mu amee gone itim nag lañ ko tudde Seydina Alioune muy Seydina Alioune Sow mii nag sañcoon nag dëkk bi nag di daaru Sow lool lépp daal la seex Moussa Ka dajale ñaax ci nag sëriñ Abdoulahi nag mi ko tàggu nag ngir dem màkkatal mukarrama def ko nag ay way ñu teewlu ko xad qaala muusa xaadimil xadiimi liman xawaa taxaddumil xadiimi abdul asiisi mi doomi cheikh alhaaji mi def xalifa bi tabax jumaa ji lay bëgg a ñaanal gudd fan ak barke ngir mooma tagg woon ci mboolem Mbàkke te mooma tagg woon ci mboolem Tuuba ba ñuy rañaan jëm Makka dem na booba wallaahi yow dinaa la ñaanal gudd fan soo ko defee xam li maam yële xamoon yàlla na nga gudd fan ba xam ay daara ci darajey Cheikh Bamba ak maam Jaara yàlla na nga gudd fan di wéy bay xajati ay yooni yoon ci darajey Dul Hijjati yàlla na nga dem delliseeg jàmm fekk ma fii ma wér te toog ne jomm yàlla na nga dem makkata dem madina siyaare njool makka ba xam sa yéena yàlla na nga xaj te umra sànni jamra siyaare yeneen ya te xam seen xayra te dem mun na dem ba safa dem marwa dem bi ru sam-sam naan ca tàggoog marwa te dem baqiya ba siyaare uthman siyaare yeneen ya di xeeti adnaan yàlla na nga boole mbooti tuuba ak tayba ci darajey sa maam ja moomoon tayba kookale mooy alxaaji ba ñu naan baara moo dëkk boofel daana am ay daara moom xaji woon na makka far ca ayaatu ca jamonoy Seex Bamba mooy ayaatu moo jur sa maam ja aalim la woon àllam la ku bari xam-xam la boroomi may la man moo ma jàngal alxuraan fa miri na googee fa caaxo ñam fa jàngal bari na man fa ma jaar ak moom mëneesu koo lim ak fa ma jaar ak sabaay kenn du ko xam sëriñ Mamar Penda gëneesu koo baax moo bari xam-xam mooy boroomi xar baax bi mu matee jël soxna ñu boole ko nag soxna Fatima Ñang mook soxna Fatima Ñang nag ñetti bant lañ am muy sëriñ Cheikh Xaddim Mbàkke mi sëriñ Abdoulahi nag fayee maamam sëriñ Touba Cheikhul Xaddim Awa Mbacke mi mu fayee nag maamam itam soxna Awa Bousso ak El Hadji Fallou Mbacke di ki mu fayee nag waajuram nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke moo nekk itam nag am caatam yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Aysatu Sow mook soxna Aysatu Sow itam benn bant lañ am muy nag ki toog nag a toogaayam nag jamono jii di ki mu fayee nag sëriñ Fallou waajuram ñu koy wooye nag sëriñ Cheikh fallu mbakke yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Koddu Fall moo soxna Koddu Fall nag benn bant lañ am mu fayewaat ko nag waajuram di sëriñ Fallou Mbacke ñu koy wooye nag sëriñ Galas Koddu yoraatoon soxna Rama Ndiaye nag amuñu nag ak njaboot dëkk bii di ñii bi nag la dëkkoon yoroon na soxna suñuy wax nag soxna ummi Mbàkke di doomu sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moom sëriñ Cheikh Absa Mbàkke moom Maam Mor Anta Sali Mbàkke mook soxna ummi Mbàkke ba tey itam nag amuñu nag ak njaboota yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Ndey Jogob Ndaw waaye mook soxna Ndey Jogob Ndaw nag amuñu nag ak njaboota soxna Ndey Jogob mii nag ci dëkk bii di Ndakaaru nag la nekkoon juróomi bant nag la ko suñ boroom séddee moom sëriñ Abdoulahi Mbàkke ci biir juróomi bant yooyu laataa mu fii bàyyikoo nag kenn ka nag bàyyikoo na fi di kam faya maamam ja di soxna soxna awa busoo ñu gënoon koo xam nag ci soxna maam awa mbàkke baneen bantam bi nag nekkoon am caatam di alaaji fàllu mbàkke di ñetteelu doom nag bu mu fayee waajuróom bi mu fi bàyyikoo nag moom sëriñ abdullahi mbàkke ci atum 1977 ay weer nag lañ ci teg alaaji fàllu mbàkke moom itam nag bàyyi koo fi ci biir juróomi bant yi mu fi bàyyi nag ñett ñi nag ñoo fi nekk nag ba nëgëni yal na leen suñ borom taxaw nag sàmm leen nag te aar leen muy kam faye maamam ja cheikhul xaddiima ak sëriñ fàllu nag mi ko wuutu ak sëriñ galas mbàkke koddu muy doomu soxna koddu yal na leen sàmm nag te aar leen ñoom ñi fi des ñu leen di xoole nag seen waajur wa sëriñ Abdoulahi Mbacke daana wax ne nag bu sañoon dana tudde nag fukki doom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñett rek nag la ko ci suñ boroom nag séddee ak dundam itam nag yàggul fanweeri at ak ñett rek la dund mu nekk nag ku wëllëranteeg sëriñ Basiiru Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bi mu génnee àdduna nag ci atum 1977 njaboot gi mu fi bàyyi sëriñ Basiiru Mbacke nag moo leen féetewoo nekk nag seen waajur ba tax na nag képp koo xam ni daal doomu sëriñ Abdoulahi nga jooyoo nag sëriñ Abdoulahi yi ndax sëriñ Basiiru moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu nekk nag ku ay waajuram fonkoon moo xam Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke sëriñ Fàllu nag musta nangu nag sëriñ Abdoulahi nag sori ko at yu néew yi xam-xam bu bari bi muy jàngi nag Arabie Saoudite sëriñ Fàllu nag nanguwul woon sëriñ Fàllu itam nag moo ko yóbbu màkkatal mukarama nag ci atum 1964 sëriñ Fàllu itam nag moo ko dëloon mbosa sëriñ Fàllu itam nag daawul nangu nag ku ko tudde Mamadul Faadal Mbàkke nag seede la ci ndax sëriñ Abdullahi nag daana yóbbante nag ci sëriñ Fàllu su masaa ñëw nag ci sëriñ Fàllu moom sëriñ Moor Lo na day xamal sëriñ Fàllu nag di ko wax ne Abdou Aziz nag nee na mu la koy di ko xamal nag tuddul Abdul Aziz Abdullahi nag la tudd moo tax nag tur woowu nag di Abdul Aziz nag sëriñ Fàllu nag daawu ko nangu ñu di ko wooyee nag sëriñ Abdullahi Mbàkke mi relation boobu itam nag la amoon nag waajuróom nag sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke bi waajuróom àdduna ci atum 1968 boobu nag mi ngi Égypte nag ci Caire nag di jàng Serigne Abdou nag moo sàkku itam nag ci président bi fi newoon di Léopold Sédar Senghor ñu mën a fexe nag ba doomu Serigne Fallou bii nag ñibbisi wala fekk si nag bis yu mujj nag yu Serigne Fallou Serigne Abdoul Xaadir nag moo ko joxoo tur bi mu feeñee jamono Serigne Fallou nag Serigne Abdou Xaadir nag la yabaloon nit nag toog na nag ci Serigne Abdou di ko tudd nag di wax nag Serigne Abdoul Aziz Serigne di laaj nag kan mooy Serigne Abdoul Aziz di ko wax nag bu Serigne Fallou mu leen loolu Abdullahi nag la ko waxoon nag keroog nag bi mu koy wutaloo tuur mu dëppoog nag bañ gi sëriñ Fàllu nag doon bañ ku ko tudde nag sëriñ Abdul Aziz wala ku koy wooye nag Abdul Aziz ay magam nag li ko dale nag ci sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Fàlilu ñoom ñëpp itam nag joxoon na leen cër nekkoon nag ñoom ba ci xilaaf ak sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Fàlilu nag la génnee àdduna ay doomi baayam nag dafa xaritoon ak ñoom ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Fata Mbàkke Fàlilu ñoom ñaar moom wax nañ ne seen feeñu jamono ci fukki fan ak juróom nag la ñu rawantee sëriñ Murtada Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñoom ñoom tim ñoo demandoo nag Madinatu Munawwara nag jàngi ñeenti doomi sëriñ Fàllu yi tim sëriñ Fàllu yi tim boole woon na leen ci genn kër nag ngir ñu dëkk fa muy kër gii soxna Awa Busa nag dëkkoon di waajuru Cheikh Mamadul Faadal nag ci gaar bu ndaw ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Fata Mbàkke sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ aboo Mbàkke ak moom moomu nag di sëriñ Abdullahi Mbàkke bi leen sëriñ Fàllu nag di leen ber kenn ku ne itam nag muutal la dëkk boo nekk ñoom ñooñu itam nag la berandoo ci la sañcalee nag sëriñ Abo nag dëkk bi nag di Madina Mbooba mu sañcal sëriñ Basiiru nag Tuubaa Mérina sañcal sëriñ Abdul Fata Fata Mbacke Touba ndigal sañcal sëriñ Abdoulahi nag mbos ci wetu dëkk bii nag di ñii bi mu nekkin nag ku géeju nag ci wàllu xam-xam géeju googu mu géeju nag ci wàllu xam-xam def na nag ay way nag yu takkoo takkoo takku jagleel ko nag waajuram nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke suuf sii ko waajuram nag goroloon wala dëkk bii ko waajuram nag dëloon di mbos daara jam fa amoon nag gën nëgën itam nag ma ngay dox rakkam jum bokkal waajur wu jigéen nag moo fa féete muy sëriñ Abo Bousso imnu sëriñ Modou Bousso moom sëriñ Mbacke Bousso yàggul ci juróom-ñaari at nag la toll ci 1970 nag la ñibbisi nag am njàng ci 1977 nag la génn àdduna turandoo sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi di doomu cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñu ko doon wooyee nag sëriñ Abdoul Aziz ngi génn àdduna nag ci accident ci diggante Mbacke nag ak Touba ci taxawu nag gum doon taxawu nag soxnaam nag su génn àdduna waajal googu nag mu doon waajal nag ñaanuk soxnaam soosu di soxna Fatima Ñang ci jaabante boobu nag mu doon amal ngir wàccaayu sarax soosu fes soog nag ci diggante Mbàkke nag ak Touba soxna Fatima Ñang moom sax bi mu génnee àdduna ci bisub alxamis 27 octobre 1977 lu yéeme nag la ci sëriñ Abdoulahi Mbàkke wax dafa xamal nag ñu baree baree bari nag ci ay doomi baayam rawatina nag Ñang mii nag du ma raw ngan gi ko Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag di ganalee bëgg naa koo fekkee soxna Mbeen Mbàkke Falilu nag di ko xamal ne Abdoulahi nag loolu nag du waxiin yoor yoorub altine nag bi mu ko wax ak soxna si ci guddi altine gi nag la génn àdduna ñoom ñaar nag ñu rawantee nag ñeent ñeenti fan sëriñ Abdoulahi nag mujj génn àdduna ci bisub altene fukki fan ak juróom ñett ci weeru diggaw tëbaski ci atum 1397 nag ci gàddaay gi altene fukki fan ak juróom ñett ci weeru diggaw tëbaski ci atum 1397 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy lundi 31 octobre 1977 lundi 31 octobre 1977 ñu jëlee ko nag foofu mu defee woon accident nag ci diggante Mbàkke ak Touba bërëb boobu mu defee sogitim nekki nag bërëb boo xam ne itam nag maamam sëriñ moor Penda Sow bi mu demee nag gane ji nag sëriñ Abdou Mbar ci dëkk boobu nag di Mbar Mbàkke bay ñibbisi itim nag la def soog oto bi ko doon indi nag bi mu ñëwee ba tolloog foofu nag la oto boobu nag paan mbooloo ma yoroon nag ñëw nag ci Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke di ko wax ne daal dañoo gisoon nag ku def soog waaye xamuñu nag mbokkam ñu ñëw nag doon la ko yëgal sëriñ Fàllu nag doon leen xamal ne nag fi la bokk doom nag mi ngi nii nag ci kër gi di soxna Assu Sow baneen doom itim nag ma nga nee nag ci daara ja di sëriñ Fàllu Sow kon nag ci ñun nag la bokk ci bërëb boobu nag la sëtam bii nag di sëriñ yëgal ko nag ki fi toogoon toogaayu waajuram di sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou yëgal ko itam nag ki fi nekkaloon sëriñ Touba Cheikhul Khadim di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko itam nag ci rakkam sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khader Mbacke mu jullee nag turandoow borom dër bi di sëriñ Abdoulahi Mbacke Falilou ñu jébbal ko boromam nag ci guy texe te wetu maamam ja nag soxna Awa Bousso ak bàjjanam ba nag soxna Mariama Kunta mook soxnaam soosu nag mu doon taxaw di soxna Faati Ñang ñoom ñaar sax nag lañ mujj boole nag benn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 Mbacke di ko ci fàttaliku waale moom nag sëriñ Abdoulahi Mbacke ñuy ñaan ci turandoo borom dër bi te cheikh Mamadul Faadal Mbacke fayewoon rakkam ja sëriñ Abdoulahi Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul na ñu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram tas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yal na ko suñ boroom saafara ci darajey waajuram nag cheikh Mamadul Faadal Mbacke amiin dul Faadal Mbacke amiin dul Faadal Mbacke